mooy fañ jëm fañ jëm dinaa ci wax ñaar ba ñett fa lay daanele bu ci njëkk mooy di araftu préfet de Dakar ni ñu araftuwee waa DGE l'autre jour parce que dafa jot gis nga lu nit defati dañ koy wax ne moom moo ko def te tudd ko tudd ko ba pare tiiñal ko ba askan wi xam parce que da ngay gis benn waay boo xam ne buroom lay toog taal climatiseur am di def loo xam ne mun na andi ci réew mu fitna boo xam ne lu ne xaj na ci loolu moo fi war a jeex fonctionnaires yi na ñu delloo seen xel man j'ai été fonctionnaire et j'ai toujours refusé d'appliquer un ordre manifestement illégal parce que loolu droit administratif la ñu ne DGE ñu sant leen ñu leen sant ñu xam ni lii du yoon ñu def ko tey lu am ci problème ci fitna ci réew mi ñoom ñett ñooñu la ñu ko def ak seen ministron bi ko def bi leen ko sant loolu il faut mu jeex ci réew mi tey waroon nañu def suñu manifestation ñoom bañal nañ ñu ko ne am na ñeneen ñu fa déposé saax dama yebal ndaw ne ko dem leen ngeen xool manifestation bi lii mooy manifestation bi benn camion lañ fa gaare ak benn tànt juróomi nit amu fa lii lii moo tax ñu tere ñu suñu manifestation est-ce que tappale yu mel nii mun nañ ko continuer ci réew mi on a été républicain nag cette fois yi ñu bëri ci xale yi dañ ne dañuy dem par force ñu ne leen déet on a été républicain mais bu soobee yàlla mercredi mercredi bii di ñëw gannaaw yàlla mi bind xanaa yàlla wàcce fi benn taw bu fort a fort bu orage waaye bu dul loolu gis ma lu ñu mën a tee ma def suñu manifestation bu soobee yàlla loolu it on donne dat ñaareel bi mooy wax ak militants yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi. fi ne nii 31 juillet mooy objectif bi ñun ñëpp on doit être focus sur l'objectif bu ñu dara distraire amuñu jot bu ñuy tontoo ay opposants yoo xam ne xëy suba bu ngoon jot wër plateau yi di wax ci ñun ñun du ngeen mës a gégg ñu wax ci ñoom parce que intéressé wuñu benn adversaire la ñu am mooy benn Bokk Yaakaar ak Macky Sall taluñu keneen ku jàpp ni nag wër plateau télé yi mbër mbër mbër yeewi askan wi nii wàllu naa Ousmane Sonko nii diw naa le 31 juillet bu ñu commencé wàññi la ñuy xam lan mooy loo liggéey politiquement donc militants et sympathisants yi bu leen kenn distraire bu leen tontu kenn on a objectif c'est prendre l'Assemblée nationale le 31 juillet on a qu'un seul adversaire c'est Benno Bokk Yaakaar leneen lu dul loolu taluñu ko yéeguñu ko